dal leen ak jàmm mbokku internet yi seen football tv nuyu naa leen bu baax ziar leen di am mbégte saa su ne defal leen vidéo mbokku internet yi vidéo bi léegi dama koy jagleel quelques internet wala xaw ma bëri nañu xaw ma bëriwuñu si ay appel téléphonique si ay message whatsapp yu xamante ne ay vocal yu dul jeex ak ñi nga xamante ñu may message du côté de Instagram lire naa yenn message yi yenn appel yi recevoir naa ko parce ñu bëri ne dañoo gis benn xibaar comme quoi Sofiane Diop euh, voilà ñëw na Sénégal ñu bëri na ma Mouhamed yow yaa ñu si doy man franchement Sofiane Diop waxoon naa leen que bi dossier Sofiane Diop keroog laa la l' aspect offensif euh, l' net du dëgg c' comme temps yi passe bi ngeen gisee ñu ne Aliou dafa démissionné am benn waay woo ma dafa démissionné Mouhamed lan moo tax defoo mu nekk non Aliou Cissé poisson dañ leen poisson d'avril rek wala ñu ne Sofiane Diop nangam loolu gars bu leen gëm loolu mu mel ni Aliou suba ñu ne mooy entraîneur Real Madrid loolu saa yooyu boo yeewoo gis ko ne man nga xam ne tamit noonu la demee concernant Sofiane Diop c'est c'est la bon lan lan laa ci mën a wax lu nouveau euh, que Maroc masaxla ne ko ou pas moom xam naa ne ñoom man gis naa ne temps yi mu daan def vidéo noonu mooy temps yi mu daan def vidéo temps yooyu ñun yi nekkoon nañ ci mais à un moment donné man dafa am lu lu lu lu baissé sama rythme concernant le dossier Souviens dafa am lu xamante dafa cassé carrément euh, sama rythme xam boo jàkkaarloo ndey mille gi maanaam muy Aliou man ma téye micro ma koy xool mu may xool nekkatuma sama kër nekk sama confort di def nekkatul loolu dama jàkkaarloog moom mu ma koy gis mu may gis ma nekk Aliou Cissé mënoo moom ma xamee ma nekk Soufiane Diop fu mu toll mu ne ma saay fi ma nekkoon laa nekk. te foofu du ma fa bougé maanaam du ma ko woo ku fi bëgg ñëw yow yaay ñëw neexaluma kenn xam nga dafa leer si nopp quoi wolof yu leer nañ lañ ma lañ ma làkk quoi donc mën na waat fi taxawaat naan Soufiane Diop mais leneen lay ndróol xam nga leneen lay ndróol sama yenn internet dinañ man mais attends Mohamed xanaa kii rek nekk fi joueur kii daaxu fi si Séné daaxu fi ba si Sénégal am nañu Sadio am nañu euh, c'est pas moi am nañu yeneen joueur dama concentré aussi d'autres joueurs xam nga lañ may wax mais comme que man tamit euh, boo demee ba am cent mille abonnés yàgg n personne y a beaucoup de personnes yu xamantene dañ lay xaar te ku nekk da ngay uh, bëgg bëgg bëgg am nga kan, dox ci xam do ko do do do do do do bedd kenn da nga lah, naan ñëpp ay sama internet lañ ñëpp sama ay mbokk lañ parce que man sama internet sama ay mbokk la leen wax maintenant soufiane diop jusqu'à présent man dama leen wax sama dëgg sama akhlaay ya, taala à la place daal Aliou Cissé damay dem wax ak moom man loolu du ma si d' accord du si gaaw du si masa d' ay xaw ma damay toog di xaar loolu wax naa leen ko waxati leen ko damay toog fii dañu fa am ay nawle nawle yi mooy ne Égypte suñu nawle la euh, nal ban ban pays laa mën wax Cameroun si nawle la maanaam ñi nga xam dañu raw ay coupe d' Afrique ñu war leen dabu ji war a def suñu palmarès donc lépp lu mën a defar équipe bi man damay jël de léegi nag pour suñu boy yi nekk fii nii mën a fubal ku si bëgg football ak ñoom nga con nga xeex saa yu place yi euh, mayewuñu ko de da ngay xeex Sénégal bu ñu ñëwee Sofiane Diop bu ñëwee nga nekk maa la dàq football fuuf fukki junni yoon nga wan ko sur le terrain wan ko à l'entraînement mais yow la ñuy teg Sofiane Diop ñu baax bu ñu fi tegee Sofiane Diop xamul dara Sénégalais ñoo ñi ko wax ne eh, Sofiane Diop mii saa yi day na dem toog ci maa bi xam nga lu donc foofu noonu ku nekk nag ak euh, style d'entraîneur yi xam nga donc peut que la méthode à Aliou Cissé c'est pas la méthode d'Habib Beye c'est pas la méthode de Demba Mbaye c'est pas la méthode de keneen keneen ak keneen même au niveau de Algérie kooku bi ma di fii la ñëw di jaag bëri wax ne moom fii naa non bii nooy nangam nangam jaar na fii dugg na fii fii moo daa xam neexalaate kuy neexalaat chaque jour que jëfee mu dem neexal algérien pour ñëw pour ñëw do Algérie xam nga bi la jàpp ko xam na ne équipe Algérie bii bu fi ñëwee gars yi ziar ziar ka nag mooy dóor ko dóor yi métti wili lépp mu dem topp donc lépp mu mën di def woon a mu noonu di neexal awaar que ne nag waa Côte d'Ivoire temps yi passe loolu la leen wax dañ ne dañoo ñàkk fayda si Seko Fofana Seko Fofana man pour man sur le cas Seko Fofana loolu mooy ñàkk fayda maanaam joueur bi ñëw bu ñëwee nga neexal mu ñëw football tuuti demaat mu ñëw naat mu neex loolu moo soof quoi mais ko sangna soufiane diop mo ngi espoir du jouer ko lol amul wo wuñu ko waxuñ ak mom da ngay jaar par intermédiaire ko bari nga ñu ne bëgg ñu nga ne boy bi dafa sof tay yow moso dem wax ak boy bi nañ waxante deug tamit bu fekk entraîneur morom mi def si si euh si soufiane diop soufiane diop ni kan non nga xam nga soufiane diop bëgg na jouer sénégal ngir yalla kon tant que ken deful ben ñaari pa ñetti pa jëm ci mom mais c'est ça ni ñu xanté deug ken deful ben pa ta décembre ñu prolonger wat ni ak estibou ilou ak estibou soufiane diop ah du mu ne du ma ko gaaw a gis si France de mais dina ma jaaxal lool parce que du du du style de de jeu quoi en tout koy ñoo ngi rey seen bopp ñun Sénégal ñoo ngi positionné wu tant que Aliou Cissé moo ngi nga ñëw nga ñëw boo bëggul ñëw nga ñëw am nañu si d' waaw man respecté naa am nañu si d' accord man si ñu si d' accord laa bokk donc su le sur le sur le dossier Sofiane encore une fois. yàpp amul lu bees bu fi amee lu bees incha allah dinaa def video jox leen mbokk yi li ma ne ko bi ma jaajëfal leen wax leen ba beneen sur chaîne football TV.